Féliciter aussi zone 7B parce que l'organisation Renbi n'est qu'une organisation qui a comme nous ngeen ko zone bi dafa euh, parce que l'infrastructure est disponible mais quand même vous avez tenu à organiser les navétanes ici au niveau de la zone 7B

Nous sommes di yëngatu ci la politique nous sommes ay nouveau président Macky Sall muy transformer Sénégal nous également nous bëgg transformer Grand Yoff loolu nag mënuñu ko def sans la jeunesse de Grand Yoff parce que nous nañ ñu les jeunes yu sont Grand Yoff ci quartier yëpp am nañu des pour porter le porter changement boobu ñu soxla bii Grand Yoff C'est ce que nous am solo ASC rôle rôle mag parce que ASC de regrouper la jeunesse des différents cachets jeunesse il faut nous canaliser Si nous sommes jàngee ba avons wala des sports, ñu des sports ñëw def compétition nous wax leen la vie en équipe Nous avons une compétition sans une adversité sans la violence parce que l'ol aussi amna solo un dirigeant yi sensibilisation bi ngeen def ak président ASC au passage maa ngi féliciter parce que appelé nañ à la non violence te loolu dafa am solo il faut que nous changer image du Grand Yoff Grand Yoff dañ ko wara xamé ci lu bax te lu bax rek mo fi nek lenn rek la moy ñu organiser waat suñu espace bi gën organiser gën ko accompagner les jeunes les femmes et c'est possible parce qu'on est au centre de Dakar on a beaucoup de possibilités on est l'une des communes les plus peuplées donc plus de ressources humaines pour porter notre transformation donc loolu on dañ ko exploiter c'est une valeur que nous ne devons pas négliger il faut qu'on mette les talents en avant nous avons des talents partout vois le sport tu vois la musique tu vois le yëpp amul benn domaine boo xamante mën te mënoo gis foofu ay talent yu Grand Yoff donc loolu yëpp bu ko capitaliser gëm Grand Yoff mën a am beneen xar kanam bu donc lii ñu def tey le la pour ñun donc gërëm nañ leen sant bu choix bi modeste personnes à travers man coordination APR bi Grand Yoff parce que nous, sommes sommes ñun des représentants du président Macky Sall Fiti ci Philippe Mankoy remercier au passage nos camarades camarade de l'Alliance pour la République qui a été avec nous dans tous les combats de même que nous sommes teew donc coordination bi ñëpp ngi pour un idéal la transformation de notre commune donc nous, ñi nga xamante dirigeants et président ASC Nous sommes dans des structures de jeunes di accompagner les jeunes nous mënuñu lu nous appuyer parce que les ngeen di les jeunes ça saa su donc nous devons contribuer ci que nous donc li ngeen wax fii ci formation jeunes C'est loolu que am solo la pour accompagner les jeunes ñu formation pour nous permettre d'insérer insérer beaucoup plus facilement dans le monde de l'emploi C'est ce suñu nous la ñu def parce que nous loolu nous

de bëgg nañ un ci ak yéen encore une fois zone 7B ñu ngi leen di féliciter gërëm leen sant leen et ñu leen di jox dig daje suba inshallah, allah dinañ teew ci stade bi ñu ñaan yàlla rek que la fête soit belle voilà à l'honneur de toute la coordination de l'APR mais aussi à l'honneur du président de la République Macky Sall donc maa ngi leen di gërëm di leen